leen di wax ni Tiwaawan dama leen di wax ni Tiwaawan mi ngi commencé yàqu. bi ñu indee école par bi ñu indee école par parlo. certains responsables gëm ko di ca jàng. certains responsables gëm ko di ca jàng. ak di ko jàngale. ak waaye bu jëkkoon loolu amu fi woon. yéenente jàmm àndandoo liggéey. yéenente jàmm àndandoo liggéey. moo fi xewoon. moo fi xewoon. Seydil Hadji Malick ko fi. Serigne Babacar radiyallahu anhu. ku ma sa ñëw. ku ma sa ñëw. boo ko nuyoo ba àggal. li mu lay jëkk ndax gis nga boo ko nee déedéet. mun na demal nga seeti ko soo ñëwee tàggu ko soo ñëwee tàggu ko la ah demal nga tàggu ko moom demal nga tàggu ko moom ndax njàppaa kon la léeg-léeg nga dem Seydi Hadj Mansour téye la pendant deux jours trois jours pendant deux jours trois jours nga door a ñëw ah, ko ah man day moom moo ma woon mun la waaw looloo taxoon man la demal nga tàggu ko tabaarakallaahu loolu moo fi xewoon ba ñu indee école di ca jàngale par parloo yow kii diw laa àndal laa faral naa ko waxal te xamoo looy wax ca la Tiwaawoon yàqoo nee ñu di leen tatagal nag yéen ñëpp nag ci fii ci suñuy xol ci suñuy xol sant seen taxawaay sant leen ci seeni taxawaay